mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi comme ni leen ko baaxoo deferee ci waxtu wu jot waaye ci bis bu jot ci mbooleem buntu kër maam Cheikh Ibrahima Fall yëpp tey jii nag ñu ñëwaat fii nga xamante ni mooy kër Serigne Abdou fii ci Paaleen Serigne Abdou Sakor Fall wuutu Cheikh Ibrahima Fall 80 ba 84. ñu ñëw fii nag ngir fas yéenee dugg ci biir xool liggéey bi waaye di ñaanal baax nag tey siyaar Euh, Serigne Fallou mi nga xam ne mu jiite njaboot gi di xalifa Serigne Abdou Sakor ak mboolem rakkam yëpp noonu la ñuy fas yéene ànd ak yéen rek dugg ci biir kër gi xool liggéey bi waaye waxtaan ak jëwriñu Serigne bi nga xam ne moom la Serigne bi jox kàddu waaye waxtaan ak soxna yi nga xam ne ñoo ci waañ bi ñuy taxawoo waañ bi ba liggéey bi mën a sont ba mën koo yóbbul ki nga xam ne moo fi nekkal euh, Serigne Touba comme nañ leen noonu lañ fas yéene ànd ak yéen rek topp liggéey bi ñëwaat ak yéen incha allahu rabbi jërë ngeen jëf. ñoo ngi ci ba léegi ci waañu kër Sëñ Abdou Sakour Fall ñu toog ak soxna Maguette Badiane Maguette Fall mi nga xam ne moo jiite waañ bi ay at ñu ci yàgg ànd ak moom ci liggéey bi mu jiite soxna yi eh, bàjjan ñu ngi lay nuy di la siyaar nan ngeen taxawee waañ bi. auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim barke Cheikh Abdou Sakour barke Serigne mi ñu bàyyil waañu moom lim nekke woon ca jamonoy sëñ Sakkoor ba léegi rek noonu rek la ko sëñ Fallou doxale ñu ànd ak soxna yi man nag maa leen jiite maay bàjjen Maguette Fall dëkk fii Mbacke waaye soxna yi moom rek lañ am lépp lu ma leen wax rek ñu ngi ci te it lu ñu am def ko ci sëñ bi lumu am def na ko ci lu ko taalibe bi jox def na ko ci ñun ñi luñu am def nañ ko ci. boole ko set ak selal ak toppante xuloo amut xeex amut loolu daal la nekk ci biir waañ wi. Euh, kañ nga xëy si fii. man mi nga xam ne ma jiite nag ci kër gi laal dëkk waaye Mbàkke sama kër borom kër bu weeri feeñee laay ñëw ànd ak bagages yi bala maa dellooti sama kër weer dafa feeñ ah Jibril Kan doomi Mbay Kan Xandi moo jiite équipe bu góor ñi ma jox soble si góor ñee xoole soble si 6 heures du matin lay yow fëgg ma ubbil ko mu jël bagage yi ma ànd ak moom ñu lal bu ñu lalee toog ñu sotti pombiteer yeeg soble yi tàmbali ku ñëw fekk ñu ci ñuy liggéey ba bañu yenu fu 5 heures jote ñu yenu waaw loolu daal la ñuy ñu gis na soxna yi euh, nangul nañ la nangul goo xam ne euh, duñ àgg sax ci nga leen di digal def leen day mel ne dañ la ko gën a bëgg. soxna yi moom mag ñi ak ndaw ñi ñi gën a tuuti ba ci ñi gën mag ci moom lépp lu ma leen wax rek ci loolu lañuy jaar bala cee kenn dara def dara laaj ma sama xalaat daal doy na leen ñi ngi daw ci samay xalaat man nag maa ngi ci ginnaaw bàjjal na koy faal moom sëñ Abdou Sakkour waaw bàjjal na mooy suñu bàjjal moo ngi ci biir. mooy magi sëñ Fall man nag seenu taalibe laay mën a doon moom rek laay doon bokkuma fi dara man waaw ndax ak bokk moom ak taalibe ko gën a kii te ab taalibe laa ci biir kër gi léegi nag noonu ñu def rek noonu lañ toppante waaw ni ma toppee ci ginnaaw bàjjal na koy noonu la gone yi toppee ci sama ginnaaw man nag maa jiite mboolem luy waañu maa ko jiite waaw. ñu gis ne da àndandoo sol digisement mm-hmm. waaye mel na ni kon euh, li war a jëm kër Sëñ Tuubaa mm-hmm. euh, ki koy togg dafa war a am nu mel waaw waaw amut kuy dikk fii ci ndog yi wala ngay tàmbali te jàppoo ndax ñun jàpp lañu Seex Ibra bàyyee soo jàppee ba nopp képp ko xam ne kii sax euh, jël nga sa doom boot ba wàcce ko da nga jàpp door a toogaat ci liggéey bi loolu lañ leen sant liggéey bi daal noonu la ko defee noonu lañ toppante set wecc far ngeen tollu fi ne. ci nan. ci euh, xéwal yi. ci. fan ngeen toll ci xéwal yi fi mu toll nii. fii mu nekk de ñoo ngi bëgg a yàq moom fii mu ne pare nañu ñoo ngi bëgg a yàq fi mu nekk ci loo foofu lañ toll waaw. jërëjëf euh, jërëjëf lii lañ leen jëlaloon fee nga xam ne mooy Paaleen fee ca kër Serigne Abdou Sakor Fall e, gis ngeen liggéey ba nga xamante ni njabootu Serigne Serigne Abdou Sakor Fall ñi ngi koy taxawu waaye di siyaar baax tey ñaanal mboolem njabootu Serigne Abdou Sakor yëpp di ci jiital Serigne Fallou ak mboolem njaboot gi yëpp noonu la ñu ànd ñoom ànd ak ñoom ci turu yàlla yi waaye ànd ak ñoom ci bool yi ñu yenn ko gis ngeen yoon wi ni mu demee ñu ñëw fii na jébbal ko ki nga xam ne euh, moo fi Serigne Touba di Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké di ñaan suñu borom yàggal ko lool te wéral ko ñoo ngi fii ci résidence ngir ànd ak njabootu euh, Serigne Abdou Sakor Fall waaye ci liggéey bu am solo bi nga xam ne euh, ñu ngi koy def ci diiran weeru koor gi comme ni ñu leen ko waxee rek noonu lañ fa yéene ànd ak yéen rek ci mbooleem buntu kër yi incha allahu rabbi gis ngeen mbokk taalibe yi ñoo ngi noonu. di jébbale liggéey bi euh, ñuy sant baax tey gërëm mboolem koo xam ne yaa ngi topp liggéey bi nga xam ne mooy weer koor gi nga xam ne njabootu maam Serigne Fall gi ñu ngi koy yóbbul Serigne Touba